jullit day moytu di lor moroomam loolu sax daf may yóbbu ci tey dama déglu benn vidéo yàlla xam na ko ni sama rangoon tuuru na déglu benn jigéen muy wax ñi ñu tëjoon ñuy wax ni ñu leen di mbugalee ci kaso yi ak ni ñu leen di mbugalee ci enquête yi laa ilaha illallah mu rappelé ma benn vidéo bu ma seetaanoon ci benn góor ci jamonoy yi faatu maître sëy faa bi biñ ko jàppee defe naa am nañu bari ñu ko seetaan documentaire bi faa bi bi ko police téye di ko enquête ci deewu maître sëy nee dañ koo takk ci taabul boo xam ne taabul weñ la jël këy ay këyit tooyal ko takk ci fil di ko mas courant léeg dañ koy maas mu xëm ne ñu naan ko neel yaaray metti tey waxal loolu ñu bàyyi mais est-ce nit am na droit di avouer loo nit ki lu mu waxul est-ce que loolu norme enquête la yéen police yi baal leen ma nag de xam naa di ngeen oustaz moom lu ne mu dugg ci déedéet dama leen bëgg a fàttale parce que suñuy frère ngeen ñu nag yéen ñoo bokk ndey ak baay gis nga yii may faral di souligner di ko wax bëgg ngeen bàyyi ko xel ndax ku nekk ak sa bàmmeel de wallahi ku nekk ak sa bàmmeel jigéen ji nee na dañ koy waxloo mu bañ ba mujj partie intime am ñu taal sondeel di ko ci toqal mais ñii ndax ay nit lañ ñii def jëf jii ndax ay nit lañ ndax yelloo na ñoom ñu nekk ay doomu aadama ndax yell na ci nit nga jël courant di tooyal yaramu nit di ko maas di ko maas ndax loolu jaadu na loolu moo tax torture yi ñu koy tere yow mi koy def wallahi alladi la ilaha gayru sa yonent sallallahu alayhi wa sallam nee إن الله يعذب الذين يعذبون الناس يرانتي بي نينا ني مبل نيت ني ديلن تورتيري بولن فوك ني موتي نين دي يالا دا نالين كو ديف ني نين كو ديفي نيت ني ني نين تي تي كافاي ديلن تورتيري يين ني كاي ديف يالا دا نالين تورتيري يوم القيامه تي تورتيرو يالا غنا متي ني كاي ديف سي انكيت يين ني انكيت نيت ديلن دور nan ngay tiimee nit yow commissaire nga ni say nit dóor leen ko série de vingt cinq minutes vingt cinq minutes ñu tiim yaramuñ ku nekk di dóor du ñu xool kanam du ñu xool ginnaaw dóor door dóor ba doyal mel ni rek xanaa xanaa baax ma sax da koy yërëm xanaa mu sax boo ko dóor yuux nga bàyyi ko mais yow nga ni ab policier nga dangay ngay nit di ko dóor di ko torturer di ko këdd di ko yuuxu ñii di maas non subhanallah ma ngi len di fatali hadith bi ku ko ma def tubal tubal te bagn ko defati bagnal buñ la ko santee bagnal yalla do ñoo yowal xiyaam mu ne commissaire la ko japp commissaire de yow lay japp ndax responsable nga bu la commissaire non jëlal sa loxo duggal ko ci taal bi do ko def lu ngay tim nit diko def lu sa moroomu jigen yow jigen nga diko jëf jëf ju ñaaw ñaata ñoo génn kaso ñii jaar fa amatuñu ay bët ñii jaar fa amatuñu ay bët ñii nekk fa mujj dof nekk kaso ba dof wallahi am nañ suñu benn waay kànda yal na ko yàlla yërëm su ba seet si ko sama aduna day tukki oustaz man ma yaay ma papa ñu ngi nii gumbaal nañ ma te fii lañ ma def liñ ma def ba ma liñ ma fiy indi oustaz xam nga ne dama doon gis yow xam nga ma oustaz xoolal lii dafa dem ba dof bi ñu demee ba rek laa mel ne kii àllatul la xelam ci lañ ko génne dañ koy génne même pas deux mois mu gaañ ñaata ngay gis ñu génn amee laaj gi ñii génn yore ay beeke te bañ fay dem yoruñ ko woon ñii ñu dóor leen damm seeni tànk a nitee irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama xanaa sen xol yi yërmande nekku ci borom bi neena na len ñi ci suuf man ma ca kaw asaman ma yërëm len bañal bul nangul mel non bul tim nit diko tek teg lu tegoowut xola handicap bi ñu wone ni ñu koy def net waxuma ko de dama ko gis de damaa gis kenn nettaliwu ma maa ko seetaan nan la ay policier mën a toog ak handicapé locomoteur ne ci moteur am ni ñuy ñuy dóor ci ànd handicapé koo xam ne amul tànk yu mu doxee lii lii ñaawul ku mu ci nekkoon sa frère doo ko ko def nit bu deful yoon jàpp leen yóbbu leen waaw ngeen enquête def li ngeen def mais mu leeroon ne li ngay def ak animosité ñii jàpp jigéen di di di dóori kurpañ mel ni ku nekk làmb ja bu ngeen mënee xeex làmb jaa ngi nii arène baa ngi Pikine dem leen ah mais mais tiim jigéen di ko dóor yenn di jóori kenn nettalu ma ko maa ko gis vidéo yi moom kenn du ne dama ko xool ñun ñëpp ko gis loolu ñaaw na ci ay homme de tenue ragal leen yàlla encore waxuñu pour toucher leen mais dañuy wax pour ngeen dellu ginnaaw arrière dellu leen ginnaaw arrière dee ngi ñëw dellu leen ginnaaw arrière handicapé ngi ñëw dellu leen ci ginnaaw arrière lii ngeen di def nit ñi mën na leen a dal te ñaata la loolu dal kenn dut leen yërëm lii dem na ba dagg na relation entre population bi ak homme de tenue yi seen diggante léegi na mënatu cee am mais loolu baaxul loolu nañ ko muytu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla day mbugalaat ñiy mbugal nit ñi kon nañu moytu lu mel noonu baaxul ben ben ben ben yoon mbokk yi Shuayb alayhi salam wax ay ni dem na leen wala tabxasu nnaasa asiyaahum bu leen wàññil nit ñi seen marchandise ngir am bénéfice waay waay wala taasaw bu leen boof mukk mukk mukk mukk mukk fil ardi ci suuf si mufsidin nekk yàqkat ngal la mbokk bul nekk yàqkat bul organiser concert bul cotiser pour concert bul dem ca concert bul dem mukk mukk mukk say tànk ya nga demee danañ leen laaj sa loxo ya nga demee danañ leen laaj sa jëmm ya nga feccee danañ leen laaj kon bu leen nekk ci kaw suuf sii di ko yàq su la yàlla mayee wërsëg bu mu tax lu la neex nga ni naa ko def ragalal yàlla nga dellu ginnaaw Shuayb ne leen wala taasaw bu leen sax di boob fil ard ci suuf sii mufsidin di nekk ay yàqkat yàq baaxul de ragal leen yàlla ne leen wattaqu lladi ragal leen borom ba nga xam ne kom bind na leen kon lii ñu naan leen ragal leen yàlla yéen homme de tenue yi dañoo bëgg ngeen xam ne yàlla mi leen bind te moom leen moom ñépp ku mu jéggal la waaye nañu moytu yenn yi rafetul dafa ñaaw kon Shuayb bu ne leen wattaqu lladi ragal leen borom ba nga xam ne xalaqakum bind na leen wal jibillatal awwalin ak maam yu njëkk ya ni leen yàlla bindee noonu la bindee ña leen jiitu nu ngeen mel ña leen jiitoo leen ëppoon meloon ko te yàlla alag na leen ana yont yàlla nuux yàlla alag na leen ana saalix yàlla alag na leen ana nitu yàlla alag na leen noonu la yàlla toppee benn par benn daanaka boo seetee ci yonant yi yonant bu nekk xeetam ba ñu bañee yàlla alag na leen daanaka la ca mucc ci ay yonant ci alkade bari wut de la ca mucc mooy yonent yàlla ibrahim déggoo fuññee aw nitam yàlla alag na leen par benn benn yàlla alag na leen mais alagu mbooloo kam ni mu ko defee ñële yàlla muccal na ci yonent yàlla ibrahim muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla muccal na ci xeetam waaye dinañuy am mbugal benn benn gis mbugal benn benn boobu bu ñu sàgganee ba mu ñëw ci mbooloo fitna dafay daa di am moo tax mu ne wattaqu alladi xalaqakum ragal leen buur ba nga xam ne bind na leen wal jibillata al awwalin ak mbindeef yu njëkk ya te mooy maam ya ah léegi nag mu def ñoom ñu tontu lii lépp Shuayb moom moo ko wax léegi nag qaalu ñuy tontu suaybu te xam nañ ni munuñ koo tontu ndax borom xam-xam ay wax rek munu koo daaneel ñu ne ko innama anta yow mii tigi tigi tigi yëgal ni dangaa bokk minal musaxarin ca ñañu njabar ah kii de dof bu ñu njabar la rek bu leen ko déglu kii moom ay waxam nangam nangam benn waaye tànk daf ma naa ma man dama sonn quoi suñu waa kër ñii dañ ma naan yow dof ba nga toppee Umar Sall ba légui nangam mané yow ya, loolu yag nañ ko mo yonent bi nee ko daga do yow ya looy ban ci da ngaa dofal rek ëlëk bi lañu wo gis nga buñu bëggé tak dof bi lañuy wo buñu bëggé tudd dof bi lañuy wo suñu bëggé julli dof bi lañu ñu di la wowe dof di la wowe da ba julli jot pay pouss la ne dof bi demal ci kanam ila man dof la won de mo ma ci de pay ku nekk lay xol mo ne ndaw dof bu neex dof go xam buñu tak jabar <laughs> nit ñi kenn mënut a xutba takk jabar kon de dof bi tan ah man ko nangul dof gi nangul rek inshallah allah bi te ngi ñew ci kanam dof bi ya len di jité bul bañ dof ñun ñepp dégg nañ dégg nañu lu nekk waaw nee lañu yonent bi dof nga dañu la njabar da ngaa téppatiku dañu la jinnel fu ñu karim wabnu akhin karim wabnu akhin karim ku bax domi ku bax sëtu ku bax ah buñ la né dof ba indi la ci ku bax nak kon nangul dof gi rek mais buggee bo buggee ban dof gi son ay wax mom bu mu la sonal kon nak ñu ne ko ma anta min al musahharin yow dañu la njabar léegi nak yamu fa de ñu ñëwaat indi benen wax ma anta yow sax illa ah kon kuy da'wa gaay dañ lay bëgg a nit quoi comme yow taxaw nga naan yalla nee na dañuy commencé ki est ce nit la walu def moo tax ñu ne ko wa maa anta déet yow illaa basar misluna yow nit dong nga bu ñu rey fii waaw ñun suñu li ñuy def yàgg nañ koo def waaw yàq peese mi yàq affaire yi pour am alal ñun yàgg nañ koo def waaw wa maa anta illaa mislu misluna wa in nazunnuka ñun sax dañoo jottu na yow mii laminal kaasibin da ngay fen xoolal tiim nit mel ni yonent nga ne ko ñun dañoo yaakaar ni dangay ngay fen yonent nga ne ko li nga sos yëpp yaa ko sos di ko fen subhanallah ah wa in nazunnuka la min alkaadibin léegi daal bu dee yaay yàlla tawal xeer mu jeex tàkk li ñu nekk duñu ko ba dañ ci sax tàkk duñu ko bàyyi bu fekkee yaay yàlla fa asqit dogal waddal alaynaa ci ñun kisafan ab dogit min asama bu bàyyi koo ci asamaan fi in kunta min asaadiqin bu fekkee ni bokk nga ci way dëggu yi kay bu dee yàllaa la yónni kay daggal asamaan mu ñëw dal sunu kaw allahu akbar ay doomu aadama yàgg na ci wax moo tax innaha sunan kàddu gi dañ koy doonnante yatawaarasawnahu kaabiran an kaabirin dañ koy doonnante seen biir mag jëlee ko ci mag loolu la ñuy def fa asqit ñu ne ko rotalal alaynaa ci ñun kisafan ab dogit min assamaa'i ci asamaan fi in kunta min assaadiqin bu dee dëggu nga qaala Shuayb ne leen rabbi sama boroom aalamu xam na bi ma taamaluun te la ngeen def yàlla xam na li ngeen def de li ngeen may jiiñ nag yéen a gën a xam ne newut ci man xam ngeen ni man sori naa ko dof